salut les internautes de bët set ñu amati mbégte ak contentement bu yaa daal di ànd ak yéen fas yéene waxtaanee ki nga xamante ni nag moom moo di Abdoulaye Baldé Abdoulaye Baldé di doomu Sénégal bi nga xamante ni nag bàyyeekoo woon na fi dem ca réewum Libi ngir uti ji li nga xamante ni rek moom lay terale boppam waaye tamit teralee ko mbokk yi balde Baldé moomee nag nga xamante ni daal di nañ fay boom ab bakkanam mbir ma mu nga amoon juróom-ñeenti fan ci weeruk sàttumbar gi la ñu génn ci atum 2020 ginnaaw Abdoulaye Baldé ba mu ñàkkee bakkanam tey ñu daal di fiy nga xamante ni moom moo di frère am frère bi nga xamante ni mu ngi wuyoo ci turu Bambe bu Buwaro Bambe Buwaro fa seenee ñëw séq ak ñun waxtaan indi ci ay laaj ak ay tontu ci génnu àddina ki nga xamante ni rek moom moo di Abdoulaye Balde maa ngi lay nuyu Bambe. ñoo ngi leen di fay di leen gërëm di leen sant ci invitation bi. Mm-hmm. ginnaaw nu yooyu am solo yooyu tey bu ma doon lay laaj kan mooy Abdoulaye Balde ak ñaata at la am ak fan la bakku ak fan la bàyyeekoo ba daal di dem fi nga xamante ni moom moo di ci libi ana loo ma ciy indil ay leeral. waaw Abdoulaye Baldé nag moom mu ngi dëkk euh, Kolda ci commune nu Guiréré Bokar à 18 de la ville de Kolda mm-hmm. foofu la dëkk dafa demoon naa euh, libi di daan doole foofu comme tout aventurier donc euh, mu doon liggéey ci benn station service foofu doon jaay essence ci la am benn problème ak benn citoyen libien bi ñëwoon jënd si essence waaw léegi kooku bu mu ñëwee jënd si essence mu jaay ko ba pare. waa ji nekkoon ni du lii mooy prix bi mu ne ko ah gis nga prix bi ñu fixé ko donc mhm. awma ci droit yokk wala wàññi mhm. suñu patron moo teg prix yi fii donc ci la ñuy sukkandikoo di ci jaay mhm. waa ji ne ko non lu tax mooy wax ak nit ku ñuul mu may tontu génnee armam rey ko ba pare taal oto am dem dem yoonam mu daal di nekk mbir moo xamante ni daal di nay doy waar Abdoulaye Balde wax nga ko nee nga ñaar fukki at ak juróom-ñett la daal am muy 28 ans mu nekk doomi Sénégal ginnaaw bi nga xamante ni nag dem na ca Libi di uti ji tey ab Libyen daal di nay boom ab bakkanam mbir mu ni mel boo dee xool wàllum racisme dafa mel ni def ko laale parce que nag à chaque fois doomu Sénégal yi ñu ngi ñàkk seen bakkan ci anam bu ni mel te boo waxee ñu daal di ne la noir waruma tontu loolu tey yan leeral nga ci mën a indi. waaw je fait que li may wax racisme am na ci. je pense que ne nguur Sénégal dafa war a xoolaat ay doxalinam par rapport ak yeneen pays yi. Mhm. dans les pays Maghreb racisme am na ci. le fait que ne nga rey nit ku ñuul c' est comme si ku ku rey xar nga dem sa yoon ba pare suñu nguur du ci topp du ci wax duñ ci def justice. Mhm. donc loolu euh, seen ñoom dañ ci war a taxaw. Mhm. dimbali suñuy ndaw yi nga xamante ne ñi fi nekk. pour sauver leen xam nga protéger leen pour au cas problème yii bu amee ñu mun na ci taxaw di ci wax. def justice à chaque fois mais genre cas bu amee duñ ci wax. d'accord ça continue de fil à mesure que day continuer rek. day continuer mhm. parce que boo assister boo demee ci nguur gi sax assister leen parce que ñun de fait que ne suñu cas bi xoolal nu mu demee. Mhm. crime bu ñu amee jour boobu lañ ma woo téléphone. kan moo la woo téléphone. suñu mbokk yi nekk foofu. Mhm. ki nga xamante ne ni ñoom ñaari ñoo bokkoon néeg. waaw kooku moom ma woo téléphone wax ma fee. ma sama téléphone woo le secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur muy Sarr. en personne ci numéro am laa ko woo téléphone. expliqué ko fee yi nu mu demee. Mhm. mu ne ma nañu ko jox numéro ndaw yi yore néew bi ca l'hôpital ba. Mhm. ma jox ko ko ci laa ko gëj a dégg comme famille bi mu ngi sollicité. pour que corps bi ñu indiwaat ko fii ñu def enterrement bi au niveau de Kolda. Mhm. léegi ci loolu lañ doon. dañ doon xaar Moïse Sarr mu jàpp ci ak waa ministère des affaires étrangères. Mhm. tey koor bi gis nañ ni ki di Abdoulaye Baldé génnee na fa àddina jël nañ ko denc ko foofu nga xamante ni moom moo di ci Libye lan la ñu teg seen loxo ba tax ñu ne leen coor bi mënut a ñëwaat fii ci diwaanu Sénégal. tegu teguñu ci dara man je peux dire que euh, négligence de la diplomatie sénégalaise moo waral que ne ni ñu enterré ndaw boobu foofu te loolu du yoon. Mhm. je pense que ne quand bu ñu leen waxee ci même jour bi lañ leen interpellé. Mhm. le même jour bi lañ leen interpellé. expliquer leen fee nu mu demee donc ñoom waroon nañu ci am ay matuwaay comme muy sar yor na numéro ndaw yi waroon na leen mun a woo bu munul dem woo leen na euh, jaale leen waxtaan ak ñoom dalal seen xel wala mu ñoom moom bu munul def loolu ambassade Sénégal bi nekk Tunisie wala Algérie war nañoo mun a ñëw parce que diggante bi soriwul ñëw assister xam lan moo xew exactement li ci war ñu def ko ci mais benn ñaari ñoo ñëpp def ñu ci dara te mu nekk loo xamante ne ne lu ñuy lu ñuy nakaru la parce que je pense que ne euh, ils sont là pour les Sénégalais de l'extérieur. d'accord loolu nekk ay leeral yu am solo waaye ginnaaw bi nga xamante ne Abdoulaye Baldé ci wàllum station foofu la ñu nekk ñoom ñaar coow ba mu fa amee. ginnaaw bi nga xamante ne werante nañ ci wàllum prix ki nga xamante ne moo di libyen bi génnee na armam dóor ko ko mu daanu libyen boobu tey ba mu defee li muy def tournée wane ginnaaw daal di dem li nga ci jot am ci ay information li nga ci jot a am waa joojee est-ce que teg nañ ko loxo. non teguñu ko loxo que moom bu mu defee ñaawte boobu dafa taal oto am dem këram toog lekk di naan. kenn ba léegi kenn teg ko loxo te suñu nguur gi ñoom tamit ñu ngi ñuy seetaan kenn si ñoom waxu ci nag kenn si ñoom gis ngeen ci ay kaa yu bëri yoo xamante ne ñi nekk ay responsable APR eh, doomam bi bu buñ ko reyee la ci Tamba dégg ngeen coow li mu bëree parce que il s'agit de Abdoulaye Baldé bi nekk Kolda mais après kenn du ci wax mm-hmm. loolu moo dul yoon parce que man mun naa wax ne ni dañoo amul respect et considération aux Sénégalais si et les Sénégalais de l'extérieur mm-hmm. loolu mooy waral loolu te nguur gi dafa a xoolaat ay politique am yu ñuy mener actuel mm-hmm. changer ay doxalin parce que c' est des citoyens sénégalais mm-hmm. cas yi bu amee dañ leen war a taxaw dimbale leen mm-hmm. et c'est comprendre tey président dafa waroon yób euh, yónni mission ca pour soutenir la famille de Abdoulaye Baldé def ko pourtant mu ngi koy def pour ci yeneen famille bu ñu am bu ñu nekkee ci Dakar mu koy def donc gis ngeen ne suñu euh, citoyen sénégalais bu ñu réewoon ci États-Unis gis ngeen ci ay ay mesures yu ñu ci jël mais ñun de fait que ne Abdoulaye bu mu amee lañ leen informé dès le début ministre nag Amadou Ba génnoon na si di ci wax lu jëm ci famille bi jël ci ay engagement naan dina dimbali famille bi mais après respecté wu ko ba euh, suñu yaay bi di ñëw nii léegi maître Aïssata Tall Sall ñu koy ñaan nag moom tamit la famille insiste que ne pour ñu tirer euh, cette affaire au clair pour que mu mu nekk ak à côté de la famille de Abdoulaye Baldé et soutenir la famille de Abdoulaye Baldé comme ils le font à d'autres familles. d'accord mu ngi noonu juste nga xamante ne nag moo di Amadou lépp lu jëm ci wàllum affaires étrangères ginnaaw bi nga xamante ne remaniement am na ki ko fi wuutu nag di maître Aïssata Tall Sall dossier bi tamit daal di ñëw daal di tegu ci ndoddam ndaxte kii di Abdoulaye Baldé ab doomu Sénégal la ñu daal di koy boom fa nga xamante ne moom moo di ca Libye te ki def ji ay soxlaam ginnaaw koor ba nga xamante ne nag jël nañ ko fa daal di koy denc ca libi fameem ñoo ngi nii toog liñ doon sàkku mooy ñu indil leen koor bi koor bi mujj ñu kaa indi taxawu ba ca war amu ci loolee moo waral tey ñu daal di yëkkati seen kàddu sekk ak ñun waxtaan waaye ba tey Bambe Boiro dañuy dellu siwaat ci li nga xamante ne nag moom moo ñeel lépp lu jëm ci wàllum doomu Sénégal yi nga xamante ne dañuy génn ci réewum Sénégal dem ca bitim réew moo xam ci Afrique la moo xam ca Europe la waaye chaque jour dañuy gis jëwriñ nga xamante ne moom moo yor affaire étrangère ci mel ni seen ay représentant parce que boo demee foofu ci biir ambassade yi soo demee am na ñu fa représenter sénégalais yi mais ñooñu tey taxawaay bi nga xamante ne waroon nañ ko cee am est-ce que taxawaay boobu noonu yéen gis ngeen ko ci ba nga xamante ne Abdoulaye Baldé ñàkk na ba bakkanam waaw taxawaay boobu amuñu ko amuñu ko je fait que ne ñoom politicien moo mel noonu ambassade yi ñu ngi foofu mais dimbali ñu ndaw yi nekk foofu parce que ñoom lu ñuy xool seen intérêt personnel la ñuy xool. Mhm. ils s'en foutent de toi et man mii di wax ak yow nii voyagé naa gis naa ndaw yi lu ñuy jànkonte. Mhm. j'ai fait dans plusieurs pays daanaka fii ba Gabon dem naa fa. Mhm. maa ngi gis a taxawaay bu ñu waroon a am pour ndaw yooyu foofu noonu amuñu ko. ñoom respecté wuñu euh, sénégalais yi de un. waxuma la ni ñi nga xam ne ñi nekk fële parce que tey ji en personne tey waroon nañu waroon nañu waroon nañu jox cër sénégalais yi. dimbale leen ndaw yooyu. jàppale à chaque fois que bu ñu amee ay cas yu mel nii crime yu mel nii taxawu leen wax ci def justice di day permettre que ne ne même bu nekkul kii mais dina sauver ñi nga xam xamante dañu si des. tey condition yi nga xamante ne doomu Sénégal yi ñu nga ko fa nekkee ci Libye xam nga ci dara parce que demoon nga tukki ji mën nga dellu si waat un peu condition yi ci seen wàllum dëkkuwaay ci seen wàllum ut liggéey parce que bu ñu ko amee sax dañ leen di faral di leen bunduxataal ndax lan der bu ñuul lañu. waaw mais je pense que ne euh, euh, suñu mbokk yi lu ñuy dund foofu dund bu métti la ñuy dund foofu. parce que de fait ne ñu wax rek libi mm-hmm. eh, nga ne non foofu genre demee noonu c'est sans intérêt mais am na ay libyens yi fi nekk bëri nañu fi. Mm-hmm. comme sénégalais ni ñu fi nekkee est-ce que comprendre Gabon waxi noppi Gabon si foofu tamit la même chose comme Libye la nit ñi dañ ci bañ a wax rek mais ñi ci dem xam nañ xam nañ lu xew foofu. Mm, li fa xew lan la. est-ce que parce que eh, ay difficultés yi fi nekk ndaw yi lu ñuy jànkonteel foofu ci affaire police yi xam nga genre demee noonu tu police mun na laa daf fii léegi créer la wala gis sa séjour nëbbu ko loolu yëpp rien que na ne pour indi la ay problème te boo xool boo gisee ay gabonais ñu ngi fii fees del ñu nekk ay loo xamante ne ni ndaw yi ñu ngi koy dund foofu mm-hmm. est-ce que boo fi demul doo ko xam mm-hmm. li bi waxi noppi jeunes yi il fallait que ñu voyager parce que ku tukki façon bu ne bëgg na euh, tukki am dara ñëw teral ay waajuram mm-hmm. je pense que ne euh, ay affaire u immigration bu ñuy parce que amuñu emploi fii mhm. liggéey amu fii il fallait que ñu dem mhm. gis ngeen Sénégal lu mu mel l' emploi des jeunes amul est-ce que comprendre il fallait que ndaw yi di force di dem di wuti mhm. président Macky Sall daje nañu hôtel 2 février ci sommet CEDEAO bi quand bu mu gisee ni sénégalais yi fi nekk moom mi kontaanoon na parrainage bi tamit ci hôtel Oba foofu la recevoir woon sénégalais yi maa ngi woon foofu gis na bu mu gisee sénégalais yi bu mu amoon ndaw ñi nga xam ne dañoo dem daani doole ndax pour dimbali seen njaboot seen seen seen waajur mm. donc lu am solo la il était normal que ñooñu noonu bu ñu nekkee ci ay difficulté seen nguur taxawu leen mm. parce que boo xoolee léegi jamono bu ñu nekk ni bakkanu sénégalais amatul valeur ci ci bitim réew mm. parce que considéré wuñu kenn est-ce que nga comprendre ministère des affaires étrangères ñu ngi fii tey ci wàllu ma tukki gu jaarul yoon googu sax ci laay jëm ak yow ginnaaw ni nga ko waxee réewum Sénégal métti na emploi des jeunes ñàkk na fi ndaw ñi tey désespéré nañu ba daal di jóg daal di songu gi songu gaal nga xamante ni songu nañ gaal gi sax lu tolloog téeméer ci ay doomu aadama jamono jile mën nañ ne ñàkk nañu seen bakkan parce que fu ñu demee ba naan ay 480 mu daal di nekk lim boo xamante ne nii jamono ji jéggi na dayoo ña ca des daal di taxaw daal ne xayma gi ëpp na loolu tey en tant que sénégalais en tant que ndaw boo xamante ni yaa ngi ci sa buntu àddina na di ut doomu Sénégal bi nga xamante ne jug naa ngir dugg ci gaal gi boo amee conseil boo koy jox lan lay doon. waaw au fait que ne eh, man conseil bi may jox ndaw ñi rek du ma blâmer ndaw ñi état du Sénégal lay blâmer ndax ñoom ñoo war a jox ñoom ñoo war a dimbali la jeunesse jàppale leen ci ay emplois yi ñuy wax noonu parce que boo xoolee liggéey amul Sénégal. nit ñi surtout ñun secteur bu ñu nekk Kolda xale bu ñu yeewoo ñu ngi teg ataaya di naan usine amu fa dara nag ay jakarta la ñuy def te ñu leen fi représenté liggéey ñu ku ne day xool lu jëm ci poosam rek c'est tout ministère de la jeunesse mu ngi fii mm-hmm. ñoom tamit dañ ci am ay part de responsabilité dimbali la jeunesse soutenir la jeunesse sénégalaise mais duñu ko def mm-hmm. ñoom lu leen fi ñor ay oto yu rafet kër yu rafet xaalis bu bëri bu ñuy pasare pasare mm-hmm. ba pare ñuy gis ndaw yi di ci sonn kooku bu gisee yoon pour dem Europe dina dem loolu mënul dàkk tant que il fallait qu'ils respectent les Sénégalais ils respectent la jeunesse la jeunesse sénégalaise il important mais nga xool sa jeunesse li ngay wax ak li ngay jëf bokkut est-ce parce que toll nañu foo xamante ne ni je pense que ne tey ndaw yi warul ñu woon jël di gaal ci dem gaal naan dañuy dem bitim réew dañu waroon toog fii di liggéey d'accord nga nekk ndaw di ut tey kii di Arona Moussa Dia nekk benn opérateur économique boo xamante ni ñëpp xàmmee nañ ko ci réewum Sénégal mu mel ni bon volonté yu ni mel bu ñu jëloon ay investissement jox ko ndaw ñi ndaw ñi dinañ toog fii liggéey daal di suqali fi nga xamante ni nag moom moo di réewum Sénégal ginnaaw bi nga xamante ni yéen jug ngeen di xeex li ngeen di xeex lan la ci ki nga xamante ni nag moom moo di Abdoulaye Baldé mii nga xamante ni bakkanam daal dinay des ci libi ba ñu daal di koy jébbal suñu boroom tey sa dernier mot soo doon tënk rek ana lan ngeen di xaar ci état du Sénégal Sénégal ak génn àddina ki nga xamante ni moom moo di Abdoulaye Baldé. waaw ñun lu ñuy xaar ci état du Sénégal que justice soit faite que de soutenir la famille de Abdoulaye Baldé. Mm-hmm. d'être à côté de la famille de Abdoulaye Baldé comme mm-hmm. ils le font à d'autres familles. Mm-hmm. je pense que il est normal que ne ñu def justice ñaawteef bu amee comme genre ñaawteef bi ku ko rey mu ngi toog ci këram di lekk ñu ñu nekk si ay nakar te loolu moo dul yoon. te suñu état naan nem di ci toog kenn bëggu ci wax il fallait que ñun loolu la ñuy xaar ci ministre actuel bu fi nekk. pour mu tirer cette affaire au clair le plus vite possible te mu soutenir la famille de Abdoulaye Baldé comme le ministre sortant l'avait dit est-ce que nga ci loolu la ñuy xaar ci ci moom que vraiment que ne di lancer encore un appel euh, le secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur muy Sarr parce que euh, vu que ne bu dee jullit la te ku gëm yàlla la lii cas bi yaramam waroon naa mën a daw tey waroon naa woo la famille de Abdoulaye Baldé waxtaan ak ñoom xamal leen ay dispositions yi ñu jël concernant la famille mais ba léegi tey moom jëlul téléphone am nii la ministre pour woote dem si c'est pas Moussa Baldé ministre de l'agriculture moo fi demoon te kooku tamit ci famille bi la bokk ndax xamoon na suñu maam xam na ndaw bi il était normal mu def ko donc voilà d' accord mu ngi noonu famille ki nga xamante ni ñoom ñoo di Abdoulaye Baldé li ñuy sàkku rek mooy que justice bi daal di def ab liggéeyam def liggéeyam ci naka jàpp ki nga xamante ni nag moom moo def jëf ju ni mel ca diwaanu Libi waaye tamit daal di yónnee ab benn délégation spéciale boo xamante ni danañ dem ba ca Libi régler mbir mi ba mu leer ginnaaw bi nga xamante ni nag ñàkk nañu seenu doom te ñu daal di koy denc ca diwaanu Libi ñëpp gis nañu image yi ay sénégalais ni moom ñoo ko daal di defar daal di koy jébbal suñu borom ci waxtu woo xamante ni nag ci diggante jaay ma wecc ma ca ko boomee mu daal di mujjee ñàkk bakkanam li ñuy sàkku rek ci ki nga xamante ne nag moom moo di waxtaan bi nga xam ne séq nañ ko ak Bambey Bouare daal di nekk frère ci ki nga xamante moom moo di Abdoulaye Baldé Baldé pour fàttali juste rek Abdoulaye Baldé ab doomu Sénégal la bàyyeekoo fii ci diwaanu Sénégal dem fa nga xamante ne moom moo di ca bi ngir uti ji lu mu am ñu daal di ko fay boobu mu daal di nekk nag mbir moo xamante ne mbir mu doy waar la li ñuy sàkku rek ci fameem ma bàyyi la dafa mel ni dafa am yeneen kàddu yoo ci bëgg a dolli. waaw mais juste euh, euh, vraiment di wax loo xamante ne ni pour nguur bi. Mhm. encore une fois de plus ñu taxaw suñu ndaw yi nekk à l'étranger. Mhm. ambassade yi fi nekk ñu dimbali suñu ndaw yi nekk foofu. Mm-hmm. bu ñu amee cas yu mel nii ñu war ci mun a taxaw def justice Sénégal changé ay doxalinam xoolaat ni ñuy doxalee par rapport ak yeneen pays yi. Mm-hmm. lu am solo la te jox cër sénégalais yi fi nekk. Mm-hmm. je pense que la politique aujourd'hui bu ñuy mëne man je pense que tel n'est pas le cas. je pense que ne politique boobu war nañ ko mun a xoolaat changé waat ko. ndax mun a jàppale le sénégalais président xam ne ne ay sénégalais ñoo ko fi teg. donc je pense que il s'agit pas de am ndey kumba amul ndey. Abdoulaye Baldé. c'est un citoyen sénégalais comme tout le monde mm-hmm. ñun ñoo fal président de la république fii donc cas yi bu ci amee jaadu na nu muy def ci yeneen famille yi mun na ko def pour la famille de Abdoulaye Baldé dimbali leen mm-hmm. être à côté de la famille de Abdoulaye Baldé mm-hmm. je pense que c'est un citoyen sénégalais comme moom donc euh, il est normal que ne ñoom ñu taxaw ci def ci benn soutien au niveau de la famille mu ngi noonu mu daal di nekk message bu foor boo xamante ni frère am di Bambey Boiré daal dina koy jàllale Abdoulaye Baldé am ñaar fukki at ak juróom-ñett di ab sénégalais daal di ñàkk bakkanam nag fa nga xamante ne moom moo di ca diwaanuk Libi état du Sénégal war cee bay ab waaram ba ñu xam kan moo def jëf ju ni mel soutien de famille bàyyi ay frère ak i ginnaaw bi nga xamante ni nag ñëpp dañaa yaakaaroon ci moom tey li ñuy sàkku rek mooy état du Sénégal daal di leen di dimbali ba justice bi nga xamante ne amees nañ ci moom yaakaar ne justice bi dafa indépendante importante ñu daal di koy xeexal li nga xamante ne moom la moom muy dignitéem dignitéem googu nag mbokk yi ci lañ leen di joxee dig daje ba beneen incha allah jaa jëf